asalaamaaleykum monsieur le président monsieur le président assemblée nationale monsieur le ministre des finances monsieur le ministre du travail sama collègue député yi collaborateur ministre maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur sant di sant yàlla di gërëm sa Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaan mun Mountakha mu yàgg fi wér di jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall mi ngi xam mooy buntu yoonu Mouride. monsieur le ministre sant naa Serigne Touba baax parce que heure bi daaw maa ngi si kaso bi heure bi daaw maa ngi ci kaso bi Macky Sall moo ma jàppoon te ñu ma ñaar fukk fan juróom-ñett heure bi ren maa ngi taxaw di wax ak Sénégal yi nga xamante ni moo war a programme jëm xaalis boo xam ne war a jëm si ñoom si ñett at yi kooku nag maa ngi koy sant si Ahmadou Bamba Khadim Rassoul di sant waa Touba di sant xalifa bi monsieur le ministre boo ma permettre tuuti ma répondre sama xarit la monsieur le président de la République la en tant que candidat soppi ak doomu daara mu ni xëy na doomu daara déggul français dégg nañu ko waaye duñ ko soxla wut a wax Aujourd'hui, nous sommes revenus par sacrifice une exercice républicaine consacré exercice républicain consacré par article 56 le loi règlement numéro 2020 07 le 26 février 2020 relatif la loi de finances vous parlez du débat orientation budget loolu moo ñu fi indi lii na ku ko dégg war ngaa may nekk candidat monsieur le ministre euh, ñi ngi lay gërëm bu baax a baax a baax a baax di la sant si taxawaay bi nga taxaw pour lépp loo xamante ni mooy ay leeral ak jubal nga di ñu ko wax képp ku am soxla ci loo xamante ni mooy bëgg-bëggu askan wi ci loo xam ne dafay dem ci loi de finance li mu si war a xam mu xam ko si monsieur le ministre ku ne xam ne 2023 182 milliards 769 834 633 mooy crédit de engagement bi jëm Touba crédit paiement bi jëm Touba nekk 54 milliards 714 millions 286 loolu la war a dugal Touba monsieur le ministre bëgg naa ñu def évaluation lan moo si dugg ak lan moo si des monsieur le ministre diggante Taïb Sadio bëgg naa xam tëli fu mu toll monsieur le ministre bëgg naa xam diggante Kër Sambakan Touba Toul Mbaba Garaas fu mu toll ministre bëgg naa xam Mbaba Garaas Bambey ak euh, fi nga xamante ne mooy Kër Nganda fa la toll monsieur le bëgg naa xam li nga xamante ni mooy diggante euh, fi nga xamante ni mooy diggante Ziguinchor ak Bignona tëli boobu fan la toll la hôpital de Ziguinchor bëgg naa xam aussi tamit lan ngeen si pare monsieur le ministre monsieur le président assemblée nationale député yëpp dañoo kontaan laaj mi lu tax ñu kontaan kenn ku nekk jot nga sa salaire kenn ku nekk jot nga sa indemnité de logement kenn ku nekk jot nga sa carburant moo tax député yi kontaan monsieur le président député yi assemblée nationale boo nekkee vice président commission am nga trois cent mille am nga indemnité de logement deux cent mille am nga carburant quatre cent cinquante mille am nga salaire un million trois cent am nga anum transport neuf cent mille muy trois millions cent cinquante député bu nekk donk nga ko laal fii assemblée nationale kon merci monsieur le président assemblée nationale loolu bëgg naa askan wi xam mi askan wi xam mi léegi député yi ñu fal fii am nañu xaalis dañ leen jox xaru tabaski monsieur le ministre am na député yeewi askan bu jigéen bu bëgganteeg député yeewi askan bu góor wala euh, benn bokk yaakaar bu góor na leen maye. yeewi askan rek bokk yaakaar bëggante na na leen maye fii si assemblée nationale wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf